déglu tubaab lu muy wax doom bi man ngay bëre ndeysaan nee na ko man ngay bëreel loolu rek doy na sas sa doom ngemb dugg ci làmb ji nga woo ko ni ko man ngay bëreel ndax ma xalaat xalaat samay noon xalaat samay soppe xalaat li ma daj mais xam nga ku baax a ngi pari par par élage ku baax ngi pari Farba Ngom ñu ma ngay préparé combat ak lamb ju rëy boo xam ne man ak moom ak Mohamed bu Africa production ñoo war a ànd ak waa RTS dem tëggi fa combat boo xam ne du rëy rëy rëy Farba Ngom non ku baax a baax la woo ma léegi parce que programme bi daanaka pare na euh, finaliser rek ci des non non fal bi suma arbitre bi sifflé na Gambien toj na nen ba Gambien Ndar Touré oh doorante nañu. rëppel na ko daan na ko. mais yow Gambien Lem Naar Touré. tubaab a ngeen ñuy toog. Oh, mu tërëf mu lem ko daan ko. Oh. Oh. c'est très beau. c'est très beau.

maa ngi nuyu sama doom yi mare mare sama doom yi ndaw yi nekk fii su ma yeggee ñu ne ma li tax nuyu woonu mare mbeng ak soora ak nabu ñoom maa ngi leen nuyu di nuyu sama doom yi yu mag yi ñu nekk France ñoom ñëpp ñoom Mamadou ak ñoom Mohamed ñu nekk fii ñu ngi nuyu ñëpp Marème kon boog tey dégg nga ma